société nationale d'électricité bu Sénégal moo leen di may seen revue de presse gi ku foog ne lépp jàmm lépp nice dara du fi xew lu dul jàmm yaa ngi nax sa bopp du samay kàddu kàddu yi dul mbay la yu mu yëkkati ci réew mi quotidien di arto nii ci fitna gu mu ne mën na fee yeewu ndax ni yoon di doxee bunduxataal gi ñuy bunduxataal askan wi ak ñàkkum xëy gi ci ndaw ñi njiital alliance pour la citoyenneté et le travail nekkoon ganu grand oral ci réew mi TV wax na it ci élection présidentielle bi nu dëkkmal te mu samp ci ndëndam yëy yàb bi rawatina ci candidat yu bari yi ne yàqu ci dara ndax nu candidat yi gën a bari rek ñu gën a mën a dem ci deuxième tour daaneel nguur gi le soleil mel ni ku naan ko waaye ëpp na ndax téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn candidat wàññeegum nanu leen yéenekaay bi ne premier ministre bi fi ne tey ak juróom benn ya ko jiitu ca primature 2002 léegi samp nanu seenu ndënd waaye lu néew ci ay soxna moom la soleil gis ne bëgg na noo bokk ci élection bi nu dëkmal juróom benn fukk ak juróom ñaar ci téeméer ak ñaar fukk benn yi bëgg bokk nag yéenekaay bi ne waxagunu demee ndax seenu parti dong la ñuy àndal wala coalition mbaa yeneeni kuréel fii loolay leer l'info ni Benno Bokk Yaakaar moom ba tey mi ngi ci guddi gu bët set agut ndax fippu ga fa ne tekkaaralu yenn cadre yi ak seen allié di ñu lëngool ca boobale coalition nañu leen néewalee doole réew mi quotidien mel ni ku naan ko néewal doole gi kay ci parrainage bi sax la gën a fësee ndax daanaka kuréel ganu samp ñépp ci APR la ñu bokk waral parti socialiste ci biir réew mi quotidien di ñaaw lu foqale gi ne du PS dong doxalul ni APR doxalee waral Macky Sall xoolaat booba li liste l'observateur nag ba mu xoolee Macky Sall ba séppali ko daa gis ne ma ngay defar ndamam ci élection présidentielle bi nu dëkmal yéenekaay bi dellu si ca xayma ya ñu woon secrétariat exécutif national bu APR keroog ca seen ndaje ma wax itam ci ñetteelu mandat beeg la mu leen ca digal la Amadou Ba diggee te waat ko ci kanamu responsable APR itam l'observateur dikk na ci lataa les échos di dikk ak ñun ci Macky Sall ni mu yëkkatee Amadou Ba soo fantal ñi fippu ci biir APR gannaaw loola mu nemmeeku ca seen ndajem secrétariat exécutif nationale bu barki démb ba les échos nee na itam Macky Sall ma ngay wóoral parrainage ba ngir Amadou Ba ñeel député yi ndax nee na ñoom ñëpp bu nu parrainé ku dul Amadou Ba le quotidien ne Macky Sall ma ngay roof ay galgal a samp ca la xëy wax ne Pastef kay daa suufu yeewi askan wi Walf Quotidien yi xëy wax ci candidature yu bari yenuy njortu ca Pastef ne mbaadu bukkik bennoo bi moo bëgg a màtt parti Ousmane Sonko bi enquête mel ni ku naan ko déet gaa yi kay fi ne danoo yeewu ci lali pexe la ñu ne gannaaw ba nu fippoo te yëf ya jurut lu bari amadou ba mel ni ku koy dëggal ci biir enquête ne pastef projet la ku wax projet nag xam ni weesu na benn jëmm a buso it di leeral ca wet ga ne jëmmu coalition sonko président wuute na ak doxalinu pastef te loola lu jara bàyyi xel la li jara bàyyi xel dëgg kay l'évidence nee na moo yeneen dëgg sarax yi xaar bugaan ak ñeneen bu nu weesoo coowal parrainage bi le regard ne parrainage bi kay fam nar a juree mooy ci doublon yeeg moytuwul dananu suul coalition yi néew doole ndax ñooña ñoo nar a dal ci doublon yi PDS it ma nga ca wutum parrainage ga l'indépendant ne daal dinay samp état major am ci yor yor bi booba jamono Abdou Sané mel ni ku samp Ousmane Sonko ca pale ba nuppi coordonnateur Pastef Ziguinchor ne amul sikki sàkk ne élection présidentielle bi di ñëw ca premier tour ba la ko Pastef di gagné te Ousmane Sonko la cay àndal Ousmane Sonko moomaa tax Cheikh Bara Ndiaye dalee nu ne ci kaw Madiambal Diagne ci biir yor yor bi maire Ziguinchor bi moom Ousmane Sonko la ko DG ya lankal fiche de parrainage ya yëngal na Alioune Tine ci biir yéenekaay bi ma ngay ñaawlu doxalinu direction générale des élections mi mu jàpp ne dafa doon suq nguur gi fu nu ko awloo mu aw lu nu ko defloo it mu def waral Alioune Tine ci Sud Quotidien ne Tanor Thiendella Fall ki ñoñam waruñoo wuutu conseil constitutionnel ci jël dogal wu ni mel ndax du seen cër Aminata Touré moom jàpp ne Amadou Ba dafa war a wacc mouvement citoyen bu tudd union pour un Sénégal juste la daal di taxawal taxaw it jëm ci jongante politique yi ñu dëkkmal benn ci yooyu la jongante di élection présidentielle bi ñu dëkkmal le regard na procureur bu CREI ba woon Aliou Ndao candidat la ca ndax samp na ndëndam fas yéene ca bokk Amadou Ba mi benn bokk yaakaar samp la tribune gis na ne dafa ànd ak gouvernement am rek ñu tekki soo ndombal tànk ci jafe-jafe yaskan wi jànkonteel bokk na ci mbënd mi dundu gu cher geeg ubbiteeg l'école bi ak jafe-jafe yim àndal ci wayjur yi ubbiteeg l'école booba ci la bis bi xëy na fitu wayjur yëpp a dem ndax lépp cher yéenekaay bi ne fourniture frais de scolarité habillement transport loo ca laal day lakke lii lépp nag am ci jamono joo xam ne xew-xewu diine yeeg yeneen fëq poos yi réew mi quotidien ne ko poos yooyu fëq yemook ubbi teeg l'école bi te lépp cher moo waral fitu wayjur yépp a dem libération booba jamono tu ñu yëgal ne juróom benn téeméer ak juróom juróomi nit ñu bëggoon a dem bitim réew la marine nationale teg loxo ci ñetti fan wëlbatiku dem ak ñun sigi coor nañu juróom benn élève juróom ca ñoom amaguñu sax fukki at ak juróom te ñu tegoon leen loxo ca fipp ga amoon weeru juin sigi coor jéem a leen a teggi loxo libération mel ni it ku naan ñu léegi ñu teg loxo ñañ takkal ci xaalisu covid ba ca ministère des sports ndax yéene kaay bi ne enquête ba daana ko sotti na dikk xam na ña def ak ña defut dage ba nag bam janook enquêteur ya nangu na ni ñoom def na nu lu warut ndax salfaañe nañu règle comptabilité ci mbiram Gris Bordeaux Mamadou Ngom ñaane la leen ca Matar Ba sant dong lañu ca def xew mu rëy mi président Mbagnick joob defal sëtam bi Safiyatu Diop booba jamono lañu ko réew mi quotidien di yëgal nettali nu bu mucc ayib ba amoon ca King Fahd Palace Hotel réew mi ne kenn desut ginnaaw loo xalaat ci kilifa ci réew mi ak bitim réew teg na nu tànk ca xew mu rëy ma nga xam ne Aïda Samb mu moo jeeg Pape Diouf ak ñeneen ñoo ko tëgg réew mi tudd ca ña fa teewoon Cellou Dalein Diallo bu Guinée homme d'affaires bi di Baba Tandian Mbaye Dièye Faye mi seede mbégteeg président Mbagnick Diop gannaaw bam ñaanalee Safiyatu boroom borom këram réew mi quotidien wëlbati ku xamal ñu ne Amadou Ba daal dinay beral loxo làmb ji ndax juróomi téeméeri million ci xaalisu CFA mu dib garantie ci promoteur yi lépp ngir bëgg làmb jëm kanam la tribune weesu na ko